troisième mandat moom lu ñu lu ñu ne moom la moom la euh, kii bi am na euh, kii moom mu wàcc. deux mandats léegi na yem ci deux mandats. troisième mandat bi day wax euh, seet naa ne moom mooy coow ci réew mi fi fan yi waaye Sénégal man dama yaakaaroon ne troisième mandat moom leneen la ñuy coowati waaye dootul doon troisième mandat li ngeen coowoon nañ ko 2011 ba yàlla def coow loola jàll waratu ñoo doon toogaat sax di ko coow. li ñuy dimbale ñuy ñaan daal mooy président nañu dimbale ngir yàlla ak yonent bi ah wàllu troisième mandat moom bu mu ko fi jéem nañu dimbale respecté na suñu loi bi. li nga xam ne moom la constitution bi wax loolu lañ bëgg mu dimbale nu respecté ko ndax moom moom moo ko def ci constitution ba pare na da ko vérifier nañu dimbale moo respecté li loi bi wax. deuxième mandat bi nga xam ne moom la nekk mu jeexal ko ci jàmm salaam tàggatu tàgguñu ci jàmm ak ñu libéré ko ci jàmm salaam keneen ñëw wuutu ko fi diriger réew mi. loolu daal la ñu ñaan yàlla. liggéey na fi dara moom wax dëgg yàlla liggéey na fi moom li fi liggéey moom ñëpp gis nañ nga mais nag troisième mandat moom boo bu gisee ne dana day indil réew mi ay jafe-jafe moom loolu mu bàyyi ko moo gën daal. parce que loolu noonu xam naa ne moom bu ko posé moom man naa ba jur jàmm te loolu noonu nit ki moom chaque jour dafa war a xool li réew réewam kanam rek. man pour man nit ki daal lu mu kas a wax rek ah lu mu xas a rek moom lay def pour man comme ça suuf na koo xam ne nii jëmm nga. xam nga koo xam ne nii nag magum jëmm nga moom boo xasee wax li nga wax rek danga ko war a jafe xam nga wax dañ ne wax jafe ah léegi kay moom troisième mandat jëru ma koy laaj. Ah, man de lii sama xalaat ci si li ma gis daal jàpp naa ne man loolu xelam néew gu ci daal instant bi daal li xelam war a nekk mooy jéem a jublu liggéey senegal man loolu laa gis daal ci sama ay bi man laa laa gis ne man moom war a nekk ci xelam daal mu jéem a liggéey senegal Euh, bu ko defee nit ñëpp mën cee gis seen bopp daal man laa loolu laa jàpp na daal moo nekk ci xelam instant bi moom. ma man bu moom bu bu forcé mu def troisième manda moom bu ñu demee élection moom bay daanu. ni fi bàyyi ba guerre boo ko gëjee guerre moo fay jébbiwaat donc fi bàyyi ba jaar rek lay jaaraat ndaxte réew mi fi dañoo gëm loi dañoo gëm loo xamante ne nii li loi bi wax askan wi fi mu toll dañ ko xam xam nga bu njëkk askan wi xamuñu woon lu lan la loi wax ak lu loi waxut. léegi nag fi mu toll loi bi yàlla def na dañ ko traduire ci langue yi ba nga xamante ñu bëri comprendre nañ li nga xam ne moom la loi bi wax kon fi mu toll béykat ba ca àll ba sax fi mu toll boo ko waxee ne loi bi lii la wax comprendre na te bu njëkk loolu comprendre ñoon ko léegi nag xam nañ li loi bi wax ak li bi waxut bu ñu demee élection itam mag ña nga xam ne xamuñoon léegi xam nañ dañuy euh, vote sanction la ñuy def duñu ko voteel boobaay day daanu kon nag lii lii nga xamante ne mooy jàmmam ci euh, mooy jàmm réew mi yëpp mu bañ a poser candidat libéré yi ñi mën a ñi war a dem eh, candidat def candidat eh, dem ci élection yi moom mu seetaan. non dama jàpp ne comme day doog di jóg ci élection te yàlla def na bi mu jógee ci élection léegi yàggul kon war naa xalaat leneen lu def troisième mandat kon man li ma gis daal pour ne moom la war a xalaat mooy mu jéem a def liggéey bi ne ci kanamam ba yàlla def moo élection ñëw ñu jéema xool nan lay war a defaat daal man loolu laa gis man. xam nga kenn wérantu na nguur neex na mais nag euh, bu ñu waxee waxee nguur dañ fee tëral loo xam nii mooy yoon dañ ko fee tëral ba pare liñ fi tëral nag moom la war a moom la war a jëfee kon nag jarul muy laaj troisième mandat na yem ci deuxième mandat bi rek bu dee nag moom am na keneen ay sax kii ñun ñun CTA euh, ñun xaw ma na ngeen koy ci tubaab ah ñun ñooy kii amul keneen ku fii ma a teg koo nii. danañu danañu arrangé wala yooyu ñun ñooy xool ku ñu neex rek nu fal ko xam nga mais ndegam moom daal mag jëmm la wax na deuxième daal ci la ñu yem kon na yem ci deuxième mandat nu xool keneen ku ñu fiy teg man daal noonu laa ko gisee woon xaw ma nag moom moom lu mu gis moom moom nag li nga wax nag nguur neex na neex goo xamee ni moom boo toogee rek loolu ngay mën a wéy quoi da ngay bëgg di dem di wéy rek mais nag adduna du noonu. ñun Macky Sall bañ koy bañ koy fal dañoo yaakaaroon ne dañoo yaakaaroon yaakaar lañ amoon ci moom. comme ni ñu amoon yaakaar ci moom am na ñeneen ñoo xam ne am nañ yaakaar ci ñoom ci moom ñoom comme ku mel ni Ousmane Sonko ku mel ni Idrissa Seck ah ñooñu ñëpp mën nañ ko fa remplacer ndax yaakaar ba ñu amoon ci Macky Sall ba faloon ko 2012 yaakaar boobu am nañ ko ci euh, euh, Idrissa Seck am nañ ko ci Ousmane Sonko am nañ ko ci euh, Malick Gakou comme que nu mu waa ji Sall Khalifa Sall ak ñoo ñëpp am nañ ci ñoom yaakaar. te ay jeunes lañu te jeunes dañu dafa jot nag fi mu toll ñu bàyyi jeunes yi ak réew mi ñu jéem ko euh, diriger seen bopp liggéey réew mi. askan wi de xanaa ñooy xool ñoo am seen kii bopp rek ñooy xool daal ndax ñoom wax dëgg yàlla bu fekkee dem na ba élection jot ñoom kenn ku ne xam na daal li nga war a def moom gis naa ne lool loolu daal xam naa mooy li